réew mi lii am yàlla dogal appel jiitu ci kon appel bii nanu ko def appelu ñaan ku nar yàq réew mi nag la Seydina Isaa waxoon mu ne fii manees na fee yàqule waaye kenn mënu koo yàq nañu bàyyi xel ci ne réew mii mag ñi fi jaar samp bi ñu ko sàmp ku ko bëgg yàq yaay yàqu waaye réew mi moom du yàqu bu soobee yàlla nañu bàyyi xel ci ne ndegam gëm nga sëriñ Touba ndegam gëm ak maam El Hadj naa Seydina Limaamu ak ñu baax ñu fi yàlla wàcce bu dee gëm nga ni seenab liggéey yàlla du ko neenal mukk du ko neenal mukk boo bëggee yàq yow yaay yàqu. waaye réew mi moom di yàqu sëy na isaani manees na fee yàqoo waaye kenn mënu fee yàq nee na yonent bi nee na fit fitna ngay nelaw yàlla rëbb na képp ku yee fitna ku ci ne ci nun na bàyyi xel ci ne yee fitna dina waral nga bokk ci ñi yàlla rëbb te ku yàlla rëbb jàpp la am na yoo xam ni mooy ki toog ak ki koy wut lenn la ñuy wut nguur nguur nag am na foofu ba fa yeggee jaratu ko bakkan di ci dee bakkan di ci loru nga war ka la yoo ëllëg ca kanamu yàlla yow mi wut ak yow mi toog ku ko jaral nagat di nga dajeek yàlla ëllëg